bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw u qalbuka wala saddaati maay bëgga way tey jii ma way fi sangub góor ñépp yalaw kookaa di Seex Fallu kookaa màgg moo rëy mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñépp yalaw ku mel ni ma musu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàlla tey ji ma jooy Seexuna Seex Fallu mbar ma ni mees mboolam lu nekk ci duniya jooy na yàlla murid yi xaadir ak tiijaan yi ñépp ak suusi ak asamaan seen ndoxum yàlla ak jant weer wi ak biddi wi lépp ak doj ak njanaaw yeeg njaayi àll yàlla malaayika ak jinne ak yoneen yi lépp a ko jooy ak saba ya xutbu yaag wali yalaaw wéetal na ruy ci duniyaa yépp kullu moo ru yépp jooy nan ko cey seex fallu yalaaw julit yi ak nguur gi ak àddina ñépp a ko jooy nun ñépp jooy nan ko ngir baa xam ga nawet bi jooy na ba far gàncax gi lot na tey ru yëpp jàq naan ngir seex fallu yàllaaw mboolem lu nekk ci duniya lépp lépp a ko jooy lu nu xam xamul mboolem lépp yàllaaw masi lañang moo la way way wii di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa fa yàllaaw am naa ji moom lu maam am naa ci moom lu ma xama Seex Fallu may na ma Seex Fallu may na ma Seex Fallu may na ma ay yëf na yàlla moo tax ma xam ak sañ-sañ ya maa la ko wax ak doole jaag may ya ak xar baax yàlla Eh, ma jooy falu laay ma silla ñang na dem saab sëriñ saab xarit cey ma sant ya di yeesalit suñu kóllëre sa diggante ak sëriñ bi waaye di yeesal suñu kóllëre ñu nit suñu diggante ak yow waaye di yeesal kóllëre mbooleem njobootu Cheikh Mouhideen mhm. ah, ñi ciy góor ak jigéen ñi ciy mag di ci ndaw mhm. ñu ngi koy yeesal bu baax a di la sago bu baax it mm-hmm. ndax it suñu sag nga mm-hmm. ah, ci sa taxawaay ci diina gi mm-hmm. ci sa taxawaay ci jullit ñi ci sa taxawaay ci mboolem fànn fu lislaam xewle ah, yaa ngi ci ah, fu jullit ñi soxla yaa ngi ci diis gànn waaye oyof tooy da nga diis gànn ci cay responsabilité waaye oyof lool ci kanamu taalibe yi fu ñu la soxla it ñu gis la fa loolu nag du doon lenn lu bett ci yéen ndax am na wéyjur yoo xam ne wala mm-hmm. kilifa yoo xam ne mm-hmm. boo bawoo ci ñoom mm-hmm. noonu lañ day mën a mel di ñaan bu baax mbooleem teraanga yi Cheikh Fallou amoon yal na ko yàlla sot sa kaw mbooleem ijaaba bu mu amoon yal na dotteeku sa kaw mbooleem barke gi mu amoon yal na sotteeku sa kaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi daal moo ne woon ay kàddu yu tënk yu ñëw doon yeesalaat suñu kóllëre ak yow. Mhm. waaye sa mhm. ak Cheikh mhm. allah xam naa ñoo ngi eh, nuyu mbokki internet yi. waa waa Sekhawgui gi TV di sit boo xamante ni eh, alali Serigne Serif la ndax ay taalibeem ñoo koy taxawu. waa ñii fi teew nag di eh, Serigne Ibrahima Diallo di doom ci Cheikh Mouhidine Serigne Samba Diallo borom saañ Bambara. mom nak eh, ñepp xamone taxawayam ci l'islam bi na mu fété ndaw ñi ah, daan yar ci diiné ni nga xamanteni non la ko alxuraan bëggee noonu la ko suñu borom bëggé won eh, ñepp xamone ko ci ak université eh, bu Dakar bu Cheikh ahmed Diop ci taxaw yi mu leen doon def ak vidéo yo xamanteni daana ko tassaré ci internet yi waaw couleur gi nak di couleur gu yagg bo xamanteni ni Cheikh muhiddin ak Serigne Serif Mbacke mu Cheikh Mahamadul fallilou mi tok ngeen fekk ci ko fi tay ci ndamatou ci magalu cheikh mamadul falilu bi euh, yaakar na ni tay cheikh Mouhaynin famu nek amna am lu ko neex ndax euh, serigne bi am ngan gumu dan def ganjay waye serigne bi bu mësaanda joge Touba mm, cheikh Mouhaynin yey lay yen di jël ci sañ bambara euh, bu ñuy ñew itam ño dan and and bu rafet bo xamanteni ni mbollem ñi ka dan fekke xol yep dan sedd té lepp nak ci l'islam kon bu fi Cheikh Mouhaynin bayiko njabootam teew eh, ànd ak délégation bu mag ci njiital sëñ Ibrahima Diallo mi nga xamante ni moo di xalifaam ñëw ziar si eh, mbokkam ñëw ziar si wëllëre baayam ñëw ziar si njabootu sëñ Fallou gi ak Touba gépp kon nag yaakaar naa ni loolu lu ama am solo la waaw ñu koy ñaanal suñu borom eh, yokk ay leeram fa mu nekk te dolli ñoo taas ci barkeem. ne sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax. ak bokk yi nga àndal yëpp. yi nga ne te joge ci xadara bu sel ba bu sañ bambara ne ci ëttub Muhyiddin Cheikh Samba Diallo ne di di di di doonoon xaritam donon wëllëreem waaye di mbokam itam ci l'islam bi waye mu am ak bokitam ak sëriñ sërif Fantamadi Cheikh Fantamadi serif mi nga xamne ci wàllu way juróom bu jigéen jege na ko lool nee yooyu yëpp nag boole leen ne muy ànd bu yàgg ne te ànd bi sëriñ bi ne moom jàpp na ne bu fekkente ne am na ku war a fay bor wala desal moroomam dara sëriñ bi nee na moom jàpp na ne moom moo desal Cheikh Mouhidine dara ndax ku ne xam na Cheikh Mouhidine ñàkk jotam nit koo xam ne du tëdd ci lal te bu bët setee mu nekk ci soxlay doomu aadama yi mais noonu la daan yendoo te lu mu xat-xat ne bu màggalu tuubaa jublu see wala màggalu kazu rajab ne dina jóg moom ci boppam Cheikh Mouhidine ñëw yendu si fii ci kër gi ne sëriñ bi nee na kon loolu ne ci rafetal la ci wàllu lislaam waaye ci wàllu mbokk waaye ci cofeel gu mu amoon ci diggam ak waa kër Cheikhul Khadim euh, doon ne njariñ la woon lool sëriñ bi ne Cheikh Mouhidine doon koo xam ne njariñ la woon lool ne mën naa wax sax ne njariñ la ba léegi ne ba fi mu ne ku déglu waxtaanam mën naa nekk làmp boo xam ne boo ci niitoo doo juum nee te loolu nag àdduna bépp seede nañ ko ne boo demee ci jumtukaayu xarale yi ba léegi ne sëriñ bi ne da ngay defee ni Cheikh Mouhidine mu ngi ci kaw suuf ba léegi ne dafa mel ni sax ginnaawam la ko nit ñi gën a sopp ginnaawam la ko nit ñi gën a topp ginnaawam la ko nit ñi gën a mën a jariñu ci moom waaye nag ne mi ngi ndokkel njabootam yépp ndax li olof di wax ne mu jéewu leen ko puso bi mu réer ne Cheikh ibrahim mi toog ginnaaw Cheikh ne conférence bi mu njëkk a def université ah sëriñ bi nee na macha allah gàcce ngaalaama waaye kaw nee na kawe na njort lool ba yee ca topp yëpp nag ba gàmm gii ñu bi na ci mujj ne sëriñ bi na na ca ga waaye ne demul ca bis ba waaye waajtaay wa sëriñ bi nee na waajtaay wa bi fi sëriñ bi nekkee waajtaay wi ngeen ko waaje yóbbul la waajtaay wa dara ne mën naa wax sax ni waajtaay wi moo gën a kawe ne waxtaan wi nag teewu ko waaye ginnaaw bi gis na ko seetaan na ko itam ne waxtaan wi fa tabarakallah da ngay xam ne kii Cheikh Mouhidine moo ko yar moo ko jàngal te bàyyee na ko lu bari ne kon nag li ñuy ñaan mooy na yàgg rek ne yal na ko yàlla yàggal ba lépp lu doon yéeneem ak ay naalam mu sottee ci loxoom moom mbokk taalibe yëpp ak mbokk yëpp ne bu yàggee rek dina baax ne kon nee na loolu la ñuy ñaan yàlla sëriñ bi nee na ndax dañuy wax ne. nit moom la raw raw. nee nit lum la raw raw. boo jaaree ci yoon wa mu jaaroon. boo jaaree ci yoon wa mu jaaroon. te wàcc di dox. ne da nga àgg fa mu ne. ne kon li tax àgg gi mën a ne. mooy dox ba egg rek. ne kon nag yal na ko yàlla may gudd fan. te may nu ko. te boole ci wér. ne jërëjëf sëriñ bi. sëriñ bi ne mi ngi sant bu baax ci ni nga jàppee ko lëre gi ne moom itam ne ak ñoom itam li ci suñu wàll ne fës na ko dox ba mu mat sëkk incha allahu rabbi ne ñu ngi lay sant di sant mbokk yi nga àndal yëpp ne oustaz Ndiaye ak Coulibaly ak sëriñ yi nga àndal yëpp sang yi nga àndal yëpp rek ne noo ngi leen di sa ziar bu baax a baax incha allah jërëjëf jërëjëf Mbacke yàlla yàlla yàggal ko léegi bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw u qalbuka wala saddaati maay bëgga way tey jii ma way fi sangub góor ñépp yalaw koo kaa di seex fallu koo kaa màgg moora yi moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñépp yalaw ku mel ni ma musu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàlla tey ji ma jooy Seexuna Seex Fallu mbar ma ni mees mboolam lu nekk ci duniya jooy na yàlla murid yi xaadir ak tiijaan yi ñépp ak suusi ak asamaan seen ndoxum yàlla ak jant weer wi ak biddi wi lépp ak doj ak njanaaw yeeg njaayi àll yàlla malaayika ak jinne ak yoneen yi lépp a ko jooy ak saba ya xutbu yaag wali yalaaw wiital na ruy ci dunyaa yépp kullu moo ru yépp jooy nan ko cey seex fallu yalaaw julit yi ak nguur gi ak àddina ñépp a ko jooy nun ñépp jooy nan ko ngir baa xam ga nawet bi jooy na ba far gàncax gi lot na tey ru yëpp jàq naan ngir seex fallu yàllaaw mboolem lu nekk ci duniyaa lépp lépp a ko jooy lu nu xam ak lu nu xamul mboolem lépp yàllaaw masi moo la way way wii di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa fa yàllaaw am naa ji moom lu maam am naa ci moom lu ma Fallu may na ma Seex Fallu may na ma